mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di di leen gërëmaat bu baax di ànd ak yéen ci solution info euh, TV di leen gërëm bu baax ci ni ñi ànd ak yenn ak ñi ànd ak ñun ci solution tey ji ñu ànd ak yéen ci 30 minutes chrono fa seenee jàngat rek actualité bi bi ñu weesu di gërëm El Hadj Modou Diouf euh, Abdou Top Ablaye Diallo ci jàppale bi gërëm waa solution yëpp di leen euh, ziar bu baax baax di leen gërëm. ci ni ñu àndee ci liggéey bi ñu door euh, liggéey bi nag ak mbiri parrainage yi comme ni ñu ko waxee ci tiitre bi jëm ci Ousmane Sonko ak parenage bi mu doon lapsant le plus présent koo xam ne tey jii ñii ñi ngi naan bokkul ñi naan na bokk waaye mooy ki ñu gën a tudd ci coow li loolu dinañ ci dikk waxtaanee ko waxtaan ci Mimi Touré waxtaan ci président Macky Sall ak taxawaayam ñett yooyu tey jii mooy suñu ponk waxtaan ñu njëkkee ko Ousmane Sonko Ousmane Sonko puissance 3 Ousmane Sonko puissance 4 Ousmane Sonko puissance 5 euh, pourquoi ñuy wax loolu yàlla dafa dogal. ñu sumb parenage bi Ousmane Sonko yoon jox ko dëgg ñaari yoon ca Ziguinchor ak ca Ndakaaru ñu ne nan ko delloo ci list électorale yi naam nañ ko ci génnewoon du yoon joxuñu ko parrainage ñu bari foog ni Ousmane Sonko day téye loxoom ne élection yi comme awma parrainage du ma ci bokk wala day gedd man li Macky Sall doon wax ku gedd sa yaay aye te nguur gi dañuy jum ci personnalité bu Ousmane Sonko bari na ci li ñu doxal maa ngi fàttaliku rek kàddu yi Maham Diallo bi mu tuddoon Ousmane sonk ci mbiri aji saar ak biñ koy jëli di ko convoqué ci mbir yi aji Sarr ci convocation bu njëkk Ousmane Sonko di bañ na du dem parce que boobu dafa am immunité parlementaire te comme leveegun ko war waruñu ko muy dem réew mi ñu bari jàpp ci wax ci ba mu dem des fois ñu tappaas ko mooy bi ko takk der yi di tappaas noonu ak bi ñu koy jëlee Ziguinchor ak yu bari mais ñu gis Ousmane Sonko bu correct def nii ak jour bi ñu koy jëlee di ko yóbbu prison ba tey jii mu nekk fa yooyu yëpp bi muy am nguur gi dañoo doon jum ci personnalité bu Ousmane Sonko lu ñu jàppoon mooy nit la ko xam ne amul sago amul dal da nga ñëw mi xët-xëti boo ko provoqué mu yëngatu wala mu wax lu ëpp wala mu def lu ëpp malgré fitna yi nga ko teg mosu ñu gis mu dóor nit mais mosu ñu gis mu saaga nit waaw loolu nag moo indi ci parrainage bi yoon jox ko dégg ñu bañal ko ko. ñu war ko jox fiche parrainage joxuñu ko CDC war ko jox euh, kayit bii firndeel ni moom dugal na xaalis ñu bañal ko ko te ñaari kayit yooyu ci leen sukkandiku ni Ousmane ko dossier incomplet li jëm ci dossier parrainage ba tey jii kenn xoolu ko looloo tax ay avocat am dugal recours ca conseil constitutionnel parce que balaa ñu naan bokk nga wala bokkul danoo war a examiner sa dossier mais ñàkk boobu ñu ñàkk examiner dossier am ca conseil constitutionnel Mamadou Badio Camara avant élec avant ñii dugg ci tànn kan mooy candidat ak ku ko doonul da ngay seetlu Mamadou baajo kamara génn na wax ni ñi seen dossier matul dun ko càmbar te pourtant gis nañ fi candidat yi amul caution pourtant dem na ba conseil constitutionnel ñu nangul leen naam après dàq nañ leen ñu gis candidat boo xam ne turam nekkul ci fichier électoral bi loolu am na yooyu yëpp gis nañ ko fi. pourtant ñooñu ñëpp egg nañ conseil constitutionnel mais Ousmane Sonko moom dañ ko téye ci bunt bi moom ak ay avocat am looloo tax des fois ñu naan dafa am justice pour ñëpp mais dafa am justice boo xam ne moom contre Ousmane Sonko la parce que ni ñuy traité ñeneen ñi duñ ko traité Ousmane Sonko bu dee Ousmane Sonko rek dafa am beneen traitement boo xam ne dañ ko ciy gis loolu tax bi parrainage yi amee ñu ni ko du la jox fiche parrainage yu député yi tey la même chose mu def li mu war a def ànd ak mais fi nguur gi daanoo ci piège Ousmane Sonko laa leen wax tey jii maanaam ni mu ko jàppee dama leen a décrire ñoom ñi nu jàppee personnalité Ousmane Sonko dañ ko ñàkk xam nag ci lu bari même bi ñu koy dàq ci impôt domaine ak yu bari dañ ko ñàkk xam pour man réere googu ñu ko moo tax ñu respecté wuñ ko sax ba di ko dugal ci mbiri Adji Sarr ak yu ñàkk fayda yoo xam ne kenn xamul lu mu doon dem bay ay portable maanaam di jiñ nit bay bay jiñ nit dafa sàcc portable ab gendarmerie mu xam ne yu ñàkk fayda yoo xam ne des fois sax ki koy def ñàkk xam ni ki moo tax mu koy jiñ mais tey jii boo xawee xam Ousmane Sonko tuuti tuuti ci nit rek waxuma la sax nga fréquenté ko mais nga seetlu ay mbiram nga xam ne ñoom dañuy juum ci moom loolu tax ci mbiri Adji Sarr mi ngi doon wax naan Macky sàll respecté moom moo tax duma ko respecté parce que manque de respect la ngay jiiñ koo xam ne tey jii mooy ki gën a populaire ci réew mi yenn yi léegi parrainage bi ñëw ji nga bi parrainage bi ñëwee ñu ñàkk ko jox danoo foogoon ne moom day toog di seetaan ñu jékki-jékki mu génneel leen jomaay parrainage citoyen jomaay dem uti dëkk ba mel ne tuq su bënn saañ ba réer ñii di parrainé di fay ñii jël seen téléphone di woote naan dama bëgg a parrainé jomaay fay du jëmmi jomaay fay de Ousmane Sonko mi leen bëggoon a parrainé loolu lañ ci jublu woon yàlla dogal parrainage bi jàll bi parrainage bi jàlle nga dégg ñoom Madiambal ak ñoomi ñooñu jug nan noo koo xam ne dafa nekk danoo tas partem loo xam ne gisuñu fu ko yoon wax ci réew mi maanaam gisuñu fu ko yoon wax ci réew mi ne kin tas partem wala dara mais tey jii jomaay bu dee dem du dem ak euh, Pastef dofuñu Pastef fan la mu musee dem élection ak jumi jëmmi Pastef ay coalition lañ doon demee léegi nag coalition boobu dee daa am ñu ko porté wala coalition de parti investir jomaay fay na ko demal nekk candidat lu ci nit man lu ci nit man koo xam ne casier de judiciaire am baax na koo xam ne amul condamnation définitive amalul bor réew mi musta sàcc yorul duubul nationalité du tudd jéeri du mbadantaan ci réew mi la juddoo damay il faut que ñu fàttali jomaay du tudd jéeri du mbadantaan ci réew mi la juddoo te fi la ay maam juddoo te fi la fekk baax kon kook mënoo ko génnee réew mi bu ñuy seeti leneen na ko seeti ci ñeneen am na débat yoo xam ne kenn mënu ci dugg ci réew mi mais buñ ko xóotaloon am na ci ñoo xam ne tey jii ñu naan ay candidat ma sàmba ak ma sàmb lambar lambar ci réew mi mais mënuñu la wax seen ñetti maam ci réew mi mais du débat yu ñu intéressé parce que Sénégal ñun ñoo mag loolu léegi candidature Diomaye Faye candidature bu ko gën a baax amu fi man gisuma ko léegi fan lay jaar ba jëlee ko fi nga gis des fois patriotes yi ak ñenn ñi faral Diomaye ak ñenn ñi Pastef Pastef lu am parce que man man des fois sama wax du neex bari na ñu ngay dégg ñi nekk ci médias yi di wax di chronique liñ bëgg ci Pastef du gëm ko du dara ay vues ak bëgg ko leen xam ak riir gi parce que am na ci débat yoo xam ne bu ko nit nee dafa bëgg Ousmane Sonko wala Diomaye nekk candidat bu pare mi ibbi débat boobu mais mais doo bëreeg mbër mbër moo xam ne du la may dala nga koy may tànk da ngay dégg ku naan la est-ce que Diomaye dina bokk maanaam maanaam les patriotes war ñu am dut boobu. ngëm-ngëm bi sonk am ay avocat am ko ba tey ji ñu nekk ci kanamu yoon mais buñ teeloon a xaddi teeloon a bañ mais avocat am est-ce que dinañ dem Ziguinchor avocat yi est-ce que dinañ dem Dakar ngëm-ngëm bi ci usmaan Sonko ngëm-ngëm boobu moo war a nekk ci kenn tey ji Ousmane Sonko da am loo xam bu ko nangu woon ñooñu te dëgg mu nangu woon génn na bu ko nangu woon mën na nekk candidat am na li ñuy wax ci suuf bu nangu woon waxtaan nangu yi gars yi wax nangu ay deal ay dialogue ay compromis compromision ay tapale mais Ousmane Sonko génn na ñu pousse élection yi ah am na yenn ak yeneen ak yeneen yoo xam ne tey jii mun na bu ko nangu woon rek problème am réglé mais moom du jëmm moo ko ñor am na yoo xam ne combat de principe la principe am loo xam ne nangu ko dee wute ko moo ko gën kon daa am débat yoo xam ne débat ñeneen la mais warul doon débat wu ñu ànd ak Ousmane Sonko mooy Diomaye dina bokk du bokk lan moo koy tere bokk loolu il faut ñoom ñu taxaw ci beneen bi mooy galgal yi Ousmane Sonko dugal mooy lëkk cas si ñu bari xaaruñu ko woon xaaruñu ko woon mais wax naa ci bii passé du ma ci soriwaat ci galgal yi la bokk. ka Habib si xoolal nu mu jaaxale gars yi ba ñuy jëlee ay yi jël loo xam ne tey ji lijjanti woon nañ ko bu yàgg une affaire civile comme ni ko Cheikh Habib Sy waxee ñu génne ko naan Habib dina bokk ak du bokk ñàkk bokk Habib de xanaa mooy ñàkk bokk Karim ak xalifa ak kandaa yu bari yi ku ci lijjant ku ci lijjanti woon say boro ka nga ko séqal gëm naan doo bokk ñi amal bor réew mi nag Habib si mi amalu bor réew mi de te dañ ne ki amal bor réew mi ki amal bor réew mi te ki ñu amal bor réew mi nekk ay candidat xam na leen fay na nag fayuñu loolu xaw ma mu jël onze mu jël les parrainages yu député yi jox ko na ko demal boobu benn galgal la booy dugal pour jaaxal gaañi comme ñooy ne ñoom duñ sippi te duñ bàyyi lu ngànk day dagg Ousmane Sonko ne leen garsa garsa garsa garsa ñu bari foogoon ni ay saaga la foogoon ni ay xeex la foogoon ni ay dóorante la naka Ousmane mi ngi ñoom fii parce que dafa mel ne maamam moo koy dee maanaam dafa mel ne am lu naan ko lii mooy xew xoolal candidat yi ci bennoo bennoo ak candidat yi yi fa ne dinaa ci dikk ci kanam. à part Amadou Ba ñaata candidat ñoo génn beneen Ousmane Sonko bu jëloon benn galgal rek dugal ko heure bii waxatuñ ko gars yi dama nañ tànkam bu yàgg mais dugal bi mu dugal jomaay indi Habib Sy waxatuñ ko mu jël seex Tidiane Dièye sànni ko xanaa Cheikh Tidiane nag boo boo tappalee ci jomaay tappalee ci Habib jéem lu ne mais xanaa Cheikh Tidiane moom mooy la botte secrète de Sonko. kon tey jii Sonko day bokk boobu nit ñi di wax loolu du waxu bi nit ñi di wax nii mais Sonko day bokk du jëmmam maanaam Sonko bu ko jëmmam rek ñoroon du génn domaine bu ko jëmmam rek newoon du ñàkk li mu ñàkk bu ko jëmmam rek ñoroon du dugg kaso parce que fii xam nañ ko ni mbir yi di doxee kilifa pour nga lijjanti génn lu yomb la sama maas gi kay <laughs> maari day taalib mais kilifa moom mooy loolu kon galgal yooyu mu dugal gars yi ci analyse naan bu Diomaye ak bu Cheikh Tidiane bu Habib si nan bàyyi Sonko mu doxal mu dërule xam na fi mu jëm ak ñoom mbir mi nag du mbiru système non système bi ñi la àndal ñi ñi loon ak système du mbiri système du mbiru passif xam nga la la fi ne ni objectif bi mooy ñu dem le vingt cinq Sonko xool nan lay gañe Sonko xool nan lay gañee ba génn kaso xool nan la ñuy fexe ba jotaat ci parti Pastef mu nekkaat parti ba mu doonoon Sonko fexe ba booy yi ci kaso bi ñu génn léegi leneen lu ñuy xoolaat ñu xool ko foofu la ñu toll enjeu élection yi loolu la ange bi nekkul fi naan nan fi jëlee si sa enjeu bi nekkul nan wàññi ci ab nan ndekki nan añ nan reer pétrole bi gaz bi enjeu bi mooy fexe génne Sonko delloo siwaat Pastef booy ji kaso bi génn après nag ñu soobu ci leneen te loolu nag dafa mel ni Ousmane Sonko ak ñi mu àndal comprendre nañu ko te au-delà de Ousmane Sonko mais beneen mbir am na bu weesoo Jomaay Habib Sy wala mu weesu Cheikh Tidiane Dièye mais tey jii yi Askan Wi dellu si waat na Yewwi bi ñu tas na mais ñaata candidature ñoo faqee ci laafi Yewwi ginnaaw ñi ma njëkk tudd mais boo indee Déthié Fall Déthié Fall nga indi ko nga indi pur le candidat du pur ah kenn du wax ci moom mais buñ demoon ba baare ñi Sonko ñëpp indi léegi baare ñëpp mais dañ ba léegi les patriotes ak sonk dañuy am choix pur a ngi fi Déthié ngi fi ak leneen lu mu waxul kenn wala fi nee nan euh, lañ ci ub làmb kenn du ko sàq mi ci géew ca kër ga lañ koy tabaxee Ousmane la muy tabax ma ngi koy tabaxee ca kaso ba te mu ngi def ay effet loolu tax ma ni nguur gi xam nañ ñoom seen i plan mais plan Ousmane Sonko xamuñu ko ñoom danoo foog ni Ousmane Sonko po politicien classique yi ci la bokk jëmm ma ko ñor day bokk bu bokkul comme li Khalifa waxoon damay bokk rek naa bokk rek xam na ko moom jëmm ma ko ñor bu waxoon tax nañ bokk rek mais naa bokk rek. jëmmam a ko ñor looloo tax des fois il faut être un homme de principe politique da ngay am ay principe ñooy défendre looloo tax tey ci biir waxtaan wi mu am ku am solo koo xam ne tey jii dugg Sonko kaso ak doxalinam boo koy jàng da ngay xam ne mënu woon ñàkk ci opposition maytu leen ñi yàq seen xel yi mooy Mimi Touré pourquoi ma ne Aminata Touré nit ñi da ngay dégg ñu lay fàttali Aminata Touré naan la bi muy campagne mais campagne mais campagne la adversité la mais nekkuloon ci animosité ni naan li waxoon na lii Sonko waxoon na Sonko du bokk li la waxoon ci Sonko Adji Sarr musu ci wax lu dul Sonko na dem wuy ji léegi bi ñu jugee ci loolu campagne bi mu ne Sonko doo bokk Sonko daan ko tata min bokk mais Sénégal mais civilisé ci wàllu politique campagne bu civilisé noonu ci diggante Mimi ak Sonko musuñu ko gis amul saaga amul xas amul xaxar Sonko daan ko Mimi mu naan ko Sonko ba campagne ba jeex Sonko Mimi ñëw dugg dans l' opposition ñi ngi wax ci opposition mais renfort bu ëpp doole Mimi ci opposition man gisuma ko déglu leen Mimi Touré du jëmm ma ko ñor mais combat de principe tey jii li Ousmane Sonko nekk kaso ban discours ngay dégg discours bu dëgër discours opposant bu dal bu dul Mimi ci kan nga koy dégg. ñëpp dem na pat ragal Macky Sall doon ay tapé dem toog fële ñii di dil ñii di waxtaan ñii doon ay bukki yu sango dérubé ñii diwoo loo xam ne xeeñuñu ko mais au moins moom mu ngi au front mi ngi au di wax loo xam ne nañ ci bàyyi xel parce que dafa xam système bi lu tax Mimi Touré ba muy seeti Ousmane Sonko juge bi ne du ko si li tampon baaxul. parce que bëgguñu mu jege Ousmane Sonko di wax ak moom parce que Mimi dafa xam dafa fekkee te dafa am expérience te njëkkewul APR dafa nekk AJ def carrière internationale kooku boo ko amee ci opposition da nga koy déglu de <laughs> danga koy déglu di ko bàyyi xel parce que li mu xam ci nguur gi moo tax waa nguur gi ragal ko ba nanguwuñ ko may jàmm loolu daal ñi naan Mimi Touré élection yi amul parrainage wariwul demul fii. mais fu ñenn ñi mën a jàllee ba ci Rose Wardini ban mérite politique la ëpp Mimi Touré ak lan la liggéey ci politique fan ko xamee ci politique ba mu mën a jàll Mimi Touré ñu koy téye parce que Mimi Touré wul nguur gi loo ko mën a xasee xam ne daa am benn baat bu Ousmane Sonko di wax ne homme politique ñaar lañ koy fonkee mooy discours ak parcours Mimi kàddu gi macha allah kàddoom. macha allah moo mën a wax loolu suñu borom a koy maye te loolu la Ousmane ko am mi mi am ko day jigéen rek te tekki mu jaar ci système bi te système bi ku fi jaar ñu seexlu la aussi parce que li naan Macky di suul ndaanaan day suul ndaanaan mais Mimi Touré la mu waroon a jox Macky Sall jox na ko ba mu jeex ba traque des biens mal acquis di metti dugg na ci ba mu waree nekk premier ministre nekk nekk nekk na ministre de la justice du lépp a baax du lépp a rafet. ñun duñ wax ne Mimi dafa weex tàll mais na nga ko respecté tuuti te di ko déglu di ko bàyyi xel bañ ko dégloo xol mere gi ñu mere Macky Sall warut a tax ku jege Macky ñu mere la ñeneen ñi sax mun nga leen ñàkk wóolu mais Mimi nekk na ci directoire de campagne bu Macky Sall jege Macky Sall fal Macky Sall falaat ko mais pour des raisons de principe mu génn ji nga Mimi la lay wan ne nguur gi arrangé wu leen ji nga bi mu génnee Farba Ngom moo ko njëkk tuumaal. yàq deram pour que sénégalais seexlu ko Ousmane Sonko doful de Ousmane Sonko am na nu mi mi doon mel Ousmane Sonko du du làng ak moom mais mi mi daa moom lu mu mën a apporter ci opposition bi bu del déglu émission yi muy def ak révélation yi muy def parce que ci affaire u parrainage bi nii bari na ci ay politiciens yoo xam ne duñ ay nitu principe avant. bi leen yóbbee deuxième tour danoo taxaw ñu kaas deuxième tour taxaw kaas non non nan xoolaat calcul nan xool mais jour bi ñu jàllee ngay xam ne ñii ak système ñoo ànd ji nga bi jàllee deuxième tour waxatuñ li ñu doon wax ci fichier bi non njuumte la nit day juum ñii waruñu juum juge conseil conseil waruñu juum ñii su avenir suñu réew ak ki ñu war a jiitee dafa nekk seen loxo waruñu juum bu dee système mu parrainage bi dafa parfait ñu naan benn amul système bu parfait système parrainage dafa war a parfait parce que nag bi ñuy tànn ñun suñu jiitu réew waruñu ko tànn ci ay loterie wala ñu ko tànn ci ay caaxaan jàllale ki war a jàll maanaam baare ki war a jàll mais tey ki war a jàll comme li may faral di wax mais bu ñu bàyyee ab xidmal la dem jiite ji réew fu ñu jëm kon loolu warul doon lu naan ay système warul parfait mais ñàkk principe boobu ci ñenn ci opposition bu ñu waxee lii tey mën a wax lii suba loolu nekkul ci Mimi ba mu nekkee ci nguur gi la nguur gi laaj joxe na ko ba mu jeex mais bi mu nekkee ci opposition jëlu ci ndaare nag yàlla rek moo tax may wax nekk ci opposition jëlu ci ndaare fichier électoral bi ak taxawaay bi mu ci am est-ce que nekkul ni moo tax gars yi jaay deuxième tour parce que premier tour bi ñu baaree gars ñu bari dan na parti dem toog jàpp ni ku ci wax ñu tee la mais moom mu ñëw porter la combat tey jii bari na ñu jàll ci deuxième tour est-ce nekkul coow li Mimi Touré coow ruubee nguur gi woo communauté internationale bi parce que am na carrière internationale te am na envergure bi parce que nekkoon na premier ministre kooku waxam dañ koy déglu dañ koy bàyyi xel mais ñu gis ni deuxième tour bi moo gën a yomb nag malgré am na ay tappale yu ñu ciy wax ak yooyu mais deuxième tour bi gis nañ ni conseil constitutionnel am lu mu bàyyi tuuti am na ñu mu téye mais am na lu mu bàyyi mais Mimi Touré ñu koon bàyyi parce que Macky Sall Mimi dem campagne ci réew mi Sonko maanaam Mimi Touré même bu mënul nekk président Amadou Ba ak Mimi ci campagne Mimi Touré taxaw ne di campagne contre Amadou Ba Amadou Ba attanul loolu loolu daal démb ci émission Faram Facce mu ne du moom kon kooku dañ ko war a bàyyi xel maanaam mu ne du ma moroomam mais tey jii Mimi mi na ko opposition bàyyi xel li jëm ci wàllu pare yi ak ndaje yi ñuy dajale léegi pour élection yi jëm mu daan ay élection parce que bu dul woon yëngal yu mu yëgal mais ci élection jëm kenn du ko xam. mais wax ji mu wax ci fichier bi joxe ay chiffres xaw ma quatre cent deux mille xaw ma neuf cent deux mille ci ñoo xam ne tey jii mais loolu lu mën a gañe élection la maanaam ñin génne fichier bi ak ñin ne seen parrainage baax ñoo ñëpp doon ay sénégalais mi mi joxe ci ay chiffres mais loolu tey jii ban opposant mooy joxe chiffres yooyu parce que da cee def liggéey bi war tax xam na système bi kon kooku dafa nekk ku mën a lijjantil dara opposition bi pour man nag Mimi Bougane Gueye pour man ay victime defante wu Macky Sall la xam Mimi de wax na ko nee na def Macky Sall defantekat la waaye Mimi la fi fekk mais tey jii imagine le cas de Bougane Gueye ñu bari ñu ngi wax am naak amul man wóoruma mais depuis 2019 mi ngi sur le terrain mi ngi sur le terrain di politique di outil mais am na ñi jàll am xamaloo xam man du ma cité tur naan diw lu tax mu am des fois doo dugg part doo xam liggéey bu mu def ak ba tax mu am mais Bougane mën nga wax ay erreur politique mën nga koo wax parce que Bougane dafa xaw a beru ba mu ëpp te man mos naa ko wax mooy Macky boo beroo <laughs> Macky Sall nekk ci gars yi di xeex mais ma mais Macky Sall ku beru lay bañ. boo beroo yow dong ba mu isolé la ba nga jàpp ne yow dong la ci la lay mën a noggatu loolu nag des fois comme ni mii di def mu nekk ay combat de principe mun nga bañ a gëm sax ni gars yi àndee opposition bari na ay tappalekat bari na ay dóorkat mais combat de principe moom ay principe ngay défendre mais doo défendre nit Bougane topp tànk tibb tànk la jël huit Macky tamit la jël huit kii di président Macky mais la jël googu mu ko la jël tey jii mën na indi lii bi Macky Sall defee discours à la nation Bougane dafa génn lu mu ci waxul amul am taxawaay mu jaral ko alalam jaral ko ay moyam lépp fu Macky teg tànk mu teg fa tànk même dëkk kaw yi nii village yi ñuy naxe nit ñi fu foo Macky xëy Bougane gontu fa te dégg naa Macky sàll dafante kat la léegi nag defante boobu comme ni ko mii Mimi waxee est-ce que nekkul moo tax mu baare Mimi baare Bougane na Sonko doo bokk maanaam li maam Biram Waj wax mooy Macky Sall dafa toll ci nii maa ngi dem waaye lu ma neex laay wax lu ma neex laay def ki ma neex mooy bokk ma neexul du bokk loolu mën na ne parce que boo xoolee tey nii affaire yi di déroulé ñi ko gën a sonal politiquement pour dire laa man du ma dugg ci système anti système ci côté boobu mais ñi ko gën a sonal politiquement gën kë la jël fex na ba bokkuñu fex na ba bokkuñu mbiri Ousmane Sonko mi ngi en cours ci conseil constitutionnel xamuñu fi muy mujj mais ba jusqu'à présent fi ñu toll ci mbir yi da ngay xool ñett ñi ko gën a lëjal ci opposition ñoo xam ne fu mu Macky xëyee teg lu dul dëgg buñ xëyee dajji ko Mimi Bougane ak Sonko waaw loolu benn gis-gis la bu ñu am ci doxalin woo parce que Macky Sall paraît-il dafa bëgg ko jay man dama gis benn kilifa bu ko xam dafa bëgg ku ko wax lu baax bëgg di ko tuddee ay tur ji nga yi nga koy tuddee gars yi ñi ko wër dafa ñu de danoo xam Macky Sall Macky Sall du ku ñuy ñëw di ko wax di ko jéem a yedd wala di ko jéem a kii Macky Sall ku ñuy jaay la ku nan noo yaa fi ne réew mi li nga fi def kenn defu ko fi Ablaye Wade defu ko fi sengoor defu ko fi. yaa tëj Sonko ba dëkk bi yëngoo fii yaa génnee takk der yi yaa fi def li yoo la bëgg loolu tax boo xoolee même ci ay waxam ci njëkk de ci njekk de koo koy Macky loolu kenn mun ci dara loolu nag ñi dend ak moom dañoo xam personnalité mooy bëggul ku koy yedd wala nga koy kii Macky bëgg ko koy jaay léegi nag Mimi Touré Bougane ak Sonko loolu lañ ko mayul woon loolu lañ ko mayul woon politiquement mais à part ñoom ban politicien nga fi daan dégg. bu Sonko Macky waxee lii mu wax lee amul amul Amadou Ba sax di ànd ak moom moom loolu la xam mooy ci continuité laa nekk xam na ko il connaît la personnalité de Macky Sall ci continuité laa nekk léegi nag continuité boobu mooy indi léegi ñu xool fa la ñu jëm ak léegi loo bëgg laa bëgg bu ma fa boo fal bu ma faloo day mel ne yaa falu Amadou Ba nandite la yooyu la Macky bëgg. mu koy wax lu wolof di wax dof-dof lu ba am mu gën nit ñi di ñàkk xam loolu bëgg mu wax ko ko ba jàll léegi amul boobu boobu nag guy la mais matul këriñ xam nga guy mun na ngande mais guy mënul këriñ dégg naa ñu naan day dem terrain akapes mbër yi euh, rappeurs yi je ne sais plus xamu ñan la fay àndal fi ñu terewoon Pastef fa lay dem loolu nag day wane rek néew doole bu Amadou Ba aussi néew dooleem parce que demoon na fi Fatick xaw ma Kaffrine di wër man ma waxoon la ni dooley dooley nawetaan bi lay xeexee tey jii dooley mbëri lay bëree mais amaru Ba lan lay peser politiquement moom dong man j'aimerais bien mu organiser woon ñu ne moom moo woote ñëw teew comme ni ko Sonko defee woon Kër Massar. def ko akapes def ko feneen ak feneen mais koo xam ne yow heure booy bëree woo mbëri ne sama wet mais doole mbëri lay bëree mais moom lan mooy dooleem loolu dañ naan élection yi waa ji du dem deuxième tour mën na ne loolu lu kenn mënta dàq la loolu tax tey jii ñu bàyyi xel loolu léegi nag problème bi mu am moom seen Amadou Ba am na ñu jàpp ni ay Aly Ngouille Mohamed Dionne ay ñooma ci uh, maam booy yi yi nar jàll nguur gi moo leen génnee sànni leen comme ni mag ko son Sonko amee ay candidat am noonu la mag yi amee yeneen candidat yu dul Amadou Ba mais loolu c'est un couteau à double tranchant ndama ngi ci mais gàccee ngi ci boo koy jàngat parce que bu dee ni Benno Bokk Yaakaar ñoo daan ànd di gagné te ñu am majorité ci élection yi ñu weesu bay diirante mbagg opposition bi ca assemblée nationale ñu xëy ñu ne Mohamed Dione la mu doon am Gossas teel na ko boppam ñu ne Aly la mu doon am Linguère teel na ko boppam ñu ne Mame Boye la mu doon am Kolda teel na ko boppam te Amadou Ba ndakaaru gi muy tiitaroo ak parcelle ci politique mënu kaa gagné kon Amadou Ba deuxième touram est-ce que mën na ne tekki li président sortan daan bénéficié Amadou Ba amu ko te APR engagement bi nu waroon am ci moom amuñu ko. ku xool xam ne dooley jàmbur lay bëree mais du dooley APR du dooley bennoo teg ci mi ànd ak ay ngonk yoo xam ne ci wàllu politique danoo xewi xam ne bu neel na la investir ñu ne ñan ñoo lay jàppale ñu ne Aminata nga njaay wala Moustapha Niasse mooy yow conjugué na la au passé conjugué na la au looloo tax tey jii la cas de Ba lu jër a jàngat ci wàllu politique fan la jëm est-ce que mooy candidat wu Macky est-ce que man la moom la Macky yaakaar est-ce que moom la Macky gëm loolu tax tey jii ñaari stratégie ñoo fi ne mooy stratégie bu Sonko mooy duma dem mais dinaa roof ay galgal yu mën a ub làmb Macky Sall te ay galgal yoo xam ne est-ce que dina jàll mais boo xoolee ci côté stratégie politique gi Sonko moo gën a dox parce que bu dee bu Sonko muy pur rek di lépp day favorable opposition am na ñu ne day effriter les voix de l'opposition mais nag kaay bu leen kenn nax de élection 2007 dix bu ma juumul quinze candidats moo amoon xaw ma 2012 ah quatorze candidats mais yooyu dafa baax ci opposition de candidats yi bari dafa baax ci opposition ah. kandaay bàyyi bari dafa baax ci opposition boo xoolee élection deux mille dix neuf bi li ko xaw a yombal ci Macky mooy juróomi candidat yi ñu naan noo candidature yu bari vingt yi dem yépp buñ jàlloon baax na ci gars yi mbokk yi kon euh, ñi ngi ñi ngi jégalu di gërëm ñëpp di leen sant di gërëm Ablaye Diallo ak euh, El Hadji du Diouf euh, Top di nuyu Fallou aussi ah comme ci régie bi la rek ñu ngi koy ñaanal di gërëm ñëpp di leen sant mi ngi nii trente minutes euh, chrono ci solution info TV lay am euh, tous les jeudis bu dee ni euh, émission focus ah il faut que focus les mercredis à partir de 21 heures ci solution TV aussi ñi am gan di waxtaan ak moom ci politique bi mu doon émission bu bees yéen ñëpp bàyyi leen koo xel di ñaanal ñëpp jàmm Omar Bun Xataab Gueye moo leen ko doon présenté di jéggalu ñëpp di baalu àq ñëpp ba benn yoon incha allah.